salaamaaleykum euh, wa Sénégal euh, salaamaaleykum mbokk sportif yi donc tay euh, bu ngeen gisee ñu nek fi tay am ben émission bi nga xamante dañ leen ko fas yéene dëtmal tous les lundis moy def le grand débriefing le grand de buñ ko waxé moy ci suñu championnat bi nga euh, championnat Sénégal la Ligue 1 en Ligue 2 donc am na ñu bëri ñu nga xam euh, championnat Sénégal donc ñu faisons chaque euh, tous les lundis ñu ñëw pareil heure ñëw faisons leen débriefing manam càmbar leen lan mo xew ci journée yi ñu passé ci week-end bi ci championnat Sénégal en Ligue 1 comme en Ligue 2 donc nous ñëwé ci journée yi ñu première division bi Ligue 2 donc week-end bi jouer nañ Ligue 2 en Ligue 1 donc bo xolé ci week-end bi ñu génn en Ligue 1 US Gorée moo doon dajante ak euh, Casa Sport ñoom ñaar ñu témboo ku nekk euh, def euh, zéro but partout ñu jëw ci Dakar Sacré-Cœur ak AS Pikine ñoom ñaar aussi ku nekk def un but partout Ndiambour aussi recevoir aussi Mbour Petite Côte fële stade Albouri Ndiaye bu Louga Ndiambour daat ko fay Mbour Petite Côte ko fa daat koy deux deux buts à nga xam mooy leader ci championnat bi moo recevoir fële si stade Ngalandou Diouf ci week bi ñu génn Génération Foot mu nekkoon benn derbi derbi derbi nga xam te ne

Stade de Mbour recevoir daat koy dóor 2 buts à 0 ñu ñëw ci Jambar euh, NGB Jambar recevoir NGB le feu ci stade euh, Fodé de bu Saly euh, jàmbaar NGB fekk ko fa daat koy tenir en échec ñom ñaar ñu def 0 1 but partout AS Douane recevoir Jaraaf mu nekkon aussi choc journée di e journée bi ñu génn ci 11e journée bi donc du moins ci AS Douane ak Jaraaf Jaraaf fekk fii AS Douane fële si stade euh, Ibrahima Boy bu Géejawaay daal ko fa fekk dóor ko 1 but à 1 donc bo gisee euh, ci journée bi ñu génn ni mëna japp né ci Ligue 1 bi euh, enregistré nañu 13 buts marqués ci ci ci Ligue 1 bi ba légui ñu japp né Cheikh Bamba Dieye bu jara bu bu bu bu Cheikh Bamba Dieye di moins bi nga xam te moom moo nekk fële ci Fodé wad ci jambar bu Saly mom mo nek actuel meilleur buteur ak 12 réalisations donc bo xolé bu ñëw ci première rencontre muy US Gorée Casa Sport bu ñëwee Esgora première euh, journée bi passé muy dixième journée bi euh, dafa defoon match nul moom ak CNEPS euh, un bi partout donc ñu gis ne aussi mu ñëwaat def zéro bi partout donc ñu gis benn Gorée bi nga xamante ni mi ngi def benn pulsation ci kaw parce que boo xoolee début championnat bu xaw a difficile la def ak ay série de défaites ay match nul mais léegi boo gisee toog nañ quatre wala cinq journées yi nga xamante nii amul défaite amul defet ci championnat parce que journée bii passé dafa defoon match nul moom ak CNEPS mu donc mu nekk ñaari match yi nga xam tegle nañ ko mais boo xoolee ba tey placement bi changé wul parce que avant avant journée bi mi ngi nekkoon euh, onzième mu ñëwaat léegi nekkaat douzième donc mën nañ ne Masculinité bi moo ñëw daf ko gën a wàcc ci classement bi Casa Sport bi nga xam te ne moom moo nii la ak US Gorée ñu gis ne Casa aussi journée ba la passé dafa dafa moo ko fekkoon fële ci Aline Sitoé Diatta daal koy dóor 1 euh, bi à 0 donc mu ñëwaat aussi moog Gorée daf match nul 0 bi partout boo gisee aussi moom it bi mu am Je suis un peu bi mu euh, ah, parce que faut maintenir place parce que le dixième journée bi dafa 8e, euh, donc mu ñëwaat aussi le dixième euh, ci journée bi daal maintenir même résultat donc Dakar Sacré-Cœur AS le deuxième bi ah, le moo recevoir journée Dakar Sacré-Cœur le deuxième le journée passé Euh, génération foot la fekk dóor ko bi à 0 fële ca stade bu nekk fële ca Déni Biram Ndaw da ko fekk dóor ko bi à 1 donc mu ñëwaat fi daal di nul ak AS Pikine 1 bi partout donc boo xoolee euh, résultat bi mu def ci journée bi passé daf koy maintenir toujours ci ci place am en deuxième euh, deuxième position toujours ci dernière Tëngéej FC bi nga xam moom moo nekk ci bopp classement bi ñu ñëw ci AS Pikine bi nga xam aussi moom it dafa def match nul AS Pikine est euh, 5e ci championnat bi journée bi passé euh, dafa defoon match nul mom ak Stade de Mbour ci stade euh, stade stade bi nek Pikine ñu def fa Stade de Mbour zéro bi partout mu ñeu journée bi defaat match nul donc ñaari match nul la le donc bo xolé ba légui day maintenir place am ak position. ñu ñëw ci euh, Njàmbur Njàmbur mi nga xam journée bi passé dafa recevoir woon fii ci stade Amadou Barry euh, ci diggante mook ak Jaraaf ñëw fekk fi ko fi dóor ko 1 bi à 0 donc boo xoolee moom moo nekkoon septième donc journée bii ñu génn nii moom dafa recevoir euh, Mbour Petite Côte Mbour Petite Côte daal di koy fekk fële dóor ko 2 bi a 1 donc boo xoolee léegi dixième septième la ñëwoon léegi mu ñëw dixième place donc mën nañu tey défaite bi mu am démb fii ci stade Njàmbur daf ko gëna waccé ci ci ci classement parce que mi ngi won ci ci ci ci pulsation bu ci ci dynamique bu baax mais ak journée bi défaite bi da koy gëna waccé ci championnat bi Mbour Petite cote Mbour Petite cote ñu gis né tay ci championnat bi momit euh, li dal euh, Gorée moo ko dalan ah, parce que aussi bi nga woon ci série de défaite boo xoolee ci championnat bi mën nañu ñi ëpp bii liñ jël pamit Mbour Petite Côte la donc ñu ñëw ci journée bi mu ñëw fekk ci Njàmbur def déplacement bu bu bu extraordinaire dem jëlee fa 3 points ñëw dóor ko 2 buts parce que boo xoolee journée bi passé moom ak euh, moom ak jàmbaar dañu defoon match nul 2 partout Euh, ci 10e journée bi mu 10e donc léegi daf ko victoire am bi daf ko indi euh, ci ci ci 6e place bi donc mu nek ben 3 points bi nga xam te jël na ko trois points bu bu bu bax bi nga xam te déplacement bu mu jël. bu ñëwee ci Tëngéej FC Tëngéej FC mën nañu mooy leader championnat bi hein leader incontestable moom mooy leader championnat bi parce que boo xoolee. Euh, Teungueth FC ba léegi mën nañu moom mooy euh, la seule équipe bi nga xamante ne ni kenn gagné gu ko championnat bi muy si mu nekk ci benn dynamique bu baax di gagné ay match am parce que boo xoolee dixième journée bi dafa ñëwoon fii si stade Ibrahima Ba moom ak euh, ñaari tali ñu def match nul un bi partout bi mu recevoir euh, génération foot daal di koy dóor deux buts à un donc deuxième deux bis à un yi mu ko dóor day tax mu gën a def dëgër laayam ci ci championnat bi ak 27 points ci mu nekk ci derrière devant mu jiitu Dakar Sacré-Cœur ak ak ak ak Douane bu ñëwee ci génération foot génération foot kaam dafa jaaxal ñu Bari? parce que moom mooy le champion sortant le champion jël championnat bi ren mu mujjee ci championnat bi ñuy poser la question parce que génération foot bi ñu remarqué génération foot bi nga à domicile de la daan dóor nga mais ren renaissance foot ñu bëri dañuy ñëw fekk ko fii ci euh, Déni Biram Ndaw di ko dóor donc loolu mu nekk question bi nga xam ñu ngi koy posé ci génération foot parce que Dakar Saka kii Tëngéej FC daf ko dóor un bis deux bi deux bis à un donc boo xoolee moom mooy gën a tax mu gën a ñëw ci ci bas de table bi parce que mi ngi ci avant dernier la nekk ak treizième donc euh, journée ba passé bo xolé ci e journée bi dañ ko dóoroon Dakar sacré ko biram le daal koy journée bi aussi Teungueth FC recevoir ko le ko équipe bi nga en difficulté ci championnat peut-être xamna y ñi dernière ligne de bi dinañ avant championnat ñu ñëw ci stade de Mbour ak CNEPS li ma leen waxee sànq rek moy euh, masse des mal classés parce que bo xolé stade de Mbour aussi dafa newoon ci difficulté journée bu la passé stade de Mbour moom ak Pikine la woon fële ci stade Alassane Djigo ñom ñaar ñu def 0 euh, bi partout mu ñëwaat daal di dóor donc mu nekk 3 points yi nga xam te ne jëlee ci dëkkam ak euh parce que dafa jugee ci. 12e place bi légui mi ngi ci ci ci ci 9e place bi ah, mu nek ben position bu baax parce que da fay nek ben ouste de soulagement ci stade de Mbour bi nga xam te ni dafa amone difficulté pour gagner ay matcham CNEPS CNEPS mom lañ naan mom lañ naan le le le le le plomier ah, parce que yakana ni gaay yi ganalé wuñ ko mom moy dawla yek première division mais gars yi ganewul ganalewuñ ko ben yon parce que bo xulee bo ba légui mi ngi am problème pour gagner ay match meun nañ ne benn match kasse la gagner ci championnat bu mu commencé ba légui feulé la dem euh, euh dóor euh, Tëngéej euh, TFC Génération Foot feulé ci deni bi 1 à 0 depuis lors amugul ben victoire bi nga xam te ne ko ci ci ci championnat bi donc bo xoolee mom moy dernier ci championnat parce que journée bi passé sax def na match nul mom ak goré recevoir na Gorée dafa moom match nul 1 bi partéwul fese stade Lat Dior mais journée bi bo gisee euh, dafa gëna a dernière parce que ak euh, défaite bi nga xam stade Mbour dafa tax mu gëna a ci ci ci dernières. tableau bi moy interne rouge moom moy ci ci ci championnat bi. ak un partout match bi euh, Mbour recevoir. Euh, ñoom ñaar ñu def deux bi partout ah mu nekkoon aussi dër bi nga xam te ñu ko doon xaar fële ci ci ca ca Mbour mu euh, jàmbaar ñu def deux bi partout jàmbaar léegi dafay jóge ci sixième place bi ñëw ci septième place bi ak match lëm bi nga xam te ne am na ko démb NGB ñaari tali bi nga xam te ne masam bële passé journée bi passé daa recevoir roon euh, TFC Tëngéej mi nga xam mooy pay ci championnat bi ñoom ñaar ñu def un bi partout mu recevoir jàmbaar recevoir ku ñu defaat un bi partout maanaam dafa teg la ñaari match nul donc boo xoolee ci journée bële passé neuvième la ak machine bi am euh, dembu day tax mu euh, place bi donc euh, AS Douane ak giraffe, Douane xolé mo nekkon troisième mo recevoir quatrième bi mu nekkon choc journée onzième journée parce que Douane troisième quatrième ñu fekk ko à mu bi nga dafa ci défaite parce que journée ba le passé moko fekk fi ci Amadou ñëwaat fële ci stade Ibrahima Boye démb euh, AS Douane daal leen fay euh, daal leen dalal mu dóor ko léegi un but à mais Douane je pense que défaite bi du ko dara parce que ba léegi moom mooy maintenir troisième place parce que journée ba passé dafa dóoroon Casa euh, Sport deux buts à zéro fële ca stade stade bu bu bu deux donc troisième place devant derrière Tëngéej FC ak ak ak Dakar Sacré-Cœur ñu ñëw ci jaraaf jaraaf tamit comme li mu wax rek euh, dafa ñëw def ben résultat bu baax bu positif parce que aussi daf koy euh, jëlé ci 4e place mu ñëwaat ci 4e place bi mën naa ne ci kaw amul changement bu bu bu bu bu bu ñu remarquer ci ci ci championnat bi ci 10e euh, ci 11e journée bi donc bu ñëw ci classement bi 11e journée bi dañuy gis ne Tëngéej FC moom mooy premier rang ak 27 points. euh, Tëngéej FC mooy premier ak 27 points Euh, 8 matchs la gagné Tëngéej FC ah 0 match perdu li ma en waxoon sànq rek moy seule équipe bi nga xamanteni ni mën na gagné wuñ ko 3 euh, matchs nuls la am ak 19 19 euh, buts marqués 5 buts encaissés donc mën nañ ne équipe bi nga xamanteni day euh, day dougal bi mais équipe bi nga xam aussi du encaisser ay buts yu ñu ñëw ci deuxième place mi Dakar Sacré-Cœur ak 19 points AS Douane mo ème avec troisième ak 18 points 4e bi ñu gis fi Jaraaf ak 17 points. AS est en 5e place bi 15 points 6e euh, bi ñu gis ci Mbour Petit Cote mom mo nek 14e am avons mo nek 6e 14 points ci 7e place bi 13 points 8e euh, bi Casa Sport 13 euh, points euh Stade de Mbour en 9e position avec 13 points aussi donc 10e place ñu gis fa 12 points 11e place nous avons fa euh NZB Ñaari 12 points 12e euh, bi ñu gis euh, goré bi nga xamanteni mom moy génn ci zone relégable bi dal di ñëw ak 12e 12 points euh ñu gis 13e bi génération foot aussi mo nekkon journée bi passé ci 10e journée bi mo nekkon non ndaré euh legi mom mo ñëw légui ak 13e euh, nek ak 9 points ci derrière Seneps bi nga xamanteni mom mo mo fermer la marge ak 14e ak 9 points donc ñu gis euh championnat ba légui ci kaw moom mo amul changement parce que gis nañ 10e journée bi liñ constaté won moy P bi deux bi ak 4e bi dafa maintenir euh, sen rythme mais ci souf mo am tuuti changement par rapport ak euh, championnat première division bi. donc ñu gis ne aussi championnat bu bu bu bu metti la parce que ñu ci dernière ligne droite bi euh, ñu fas yéene am yenn match yi nga xam tane ay match choc lañ ci ci 12e journée bi. xam tane après pour phase aller donc liñ ci mëna japp dal moy euh Tëngéej FC mëna japp ne assurer que ni mom moy champion phase aller parce que 27 points la am. Euh, Dakar Sacré-Cœur am 19 euh, points donc ñu jox leen rendez-vous ci kanam tuuti ak euh, la Ligue. comme nous avons fait Ligue 1 euh, nous Ligue 2 parce que championnat Ligue 1 Ligue 2 grand débriefing toujours y a premier numéro grand débriefing donc avons ñëw ci euh, championnat Ligue 2 bi nga fait euh, weekend avons fait championnat Sénégal Nous avons fait match grave ah, changement donc bu fait 11 journée Renaissance recevoir Sonakos. Nous avons fait match nul bi partout Que Madior Major recevoir Amitié. SV ñoom ñaar aussi ñu de tembo def zéro bi partout Guédiawaye football club du GFC Pro daal recevoir euh, fële ci stade Ibrahima Boye EJ euh, Fatick mu nekkoon match bi nga xam ñëpp ñu ngi doon ko xaar euh, Guédiawaye daal di koy recevoir daal di koy dóor 1 bi à 0 Africa Promo bi nga xam te gis nañ ne mu ngi ci ay difficulté ñoom ñaar dafa recevoir US wakaam bi nekk en forme actuellement nii daal di koy Wakam fekk ko fa daal di koy dóor 4 bi à 0 ñu gis ne score bu lourd la ci ci ci ci championnat bi lu 4 bi à 0 le la ko que fekk fële daal di koy dóor euh, euh, Africa Promo Foot ñu gis si Linger, Linger, muy première euh, ci ci championnat bi bi moo doon choc journée 11 e journée bi parce que Linger, mi première moo doon recevoir Dembo Diop bi nga xamante ne deuxième ci championnat bi fële ca stade stade bu bu bu bu Saint-Louis donc Linger recevoir Dembo Diop Euh, daal koy dóor 1 bi à 0 benn penalty bi nga xamante ni moom la fa am daal di koy euh, daal di koy dugal gagné ko bi à 0 mais boo xoolee ba léegi dem Demba Diop dafay ñëwaat ci ci ci ci ci ci ci ci suufu ci suufu maanaam ci day perte place su deuxième place am daal di ñëw ak euh, troisième position ñu gis Port. port bi nga xam aussi mi ngi ci difficulté moom it Duc daf ko fekk fële ci stade Ngalandou Diouf bu Rufisque daal di koy dóor aussi 4 bi à 2 donc ñu gis aussi jamono Fatick nous avons des difficultés aussi, nous devons recevoir le FC, nous avons eu un bon de corridor 1 à 0. Donc, nous avons une première rencontre, nous avons eu Renaissance Sonakos. Nous avons eu Renaissance euh, Massoule, passé de la 10e journée, de la amitié de recevoir, amitié d'or 1 0. Donc, nous recevoir, recevoir Massoule passé, d'aller de 0 partout. Donc, nous avons eu une classe. Donc, nous avons aussi. Euh, équipe bi nga xam te ne muy euh, jamono Fatick ah jamono Fatick aussi mu def euh, résultat bu bu bu baax ci ci ci ci journée bi nga xam te ni génn nañ ko. donc mu ñëwee ci classement Ligue 2 bi ci euh, onzième journée bi gis nañ ne ba léegi Linguère moom mooy nekk pe malgré que ñaari journée yële yi génn dafa defoon ay faux pas parce que dafa ñëwoon Duc recevoir ko. wala port recevoir ko port daal di match ñu leen moom mu ñëwaat si fii si stade Amadou Barry moom ak ci digganteem ak Duc Duc Doko 2 1 but à 0 mu nekkoon première défaite bi nga xam te am na ko ci championnat Ligue 2 bi mais ba léegi boo xoolee ak victoire démbam bi moom moo nekk ci kaw ak 22 points euh, suivi de weesu Wakam bi nga xamne aussi def na dembu résultat bu baax euh, dal di doro port 4 bi dal di gagné 4 à 1 donc mom moy ñëw aussi ci deuxième place bi ak 19 points euh, ñu gis ne Dug aussi mi ngi def ben marge de progression ci kaw parce que dafa ñëw aussi à troisième position ak 19 points euh, ñu gis ci quatrième position euh, Demba Diop dafay ñëw en quatrième position moom mi 2 deuxième parce que defatu démb bi nga xamanteni ni Linguère dóor na tax mu nekk quatrième position ak 18 points ñu gis aussi Guédiawaay ah Guédiawaay aussi bi nga xamanteni équipe bi nga xamanteni équipe bu naqaree football à domicile parce que gis nañ ni mi def ben progrès à domicile euh, donc moom moo doo moo recevoir Eji euh, Fatik bi nga xamanteni mo mo moo ci troisième position bi daal koy dóor 1 but à 0 daal reprendre place am donc ñu gis Guédiawaay am amna 18 points Eji Fatik ak 17 points daal placer 6 sixième Euh, Thiès ami Amitié FC daal di am euh, ñekk septième bi ak 15 euh, points Sonacos Sonacos bi nga xam te ne aussi mi ngi gis ne mi ngi def résultat bu bu baax journée yi nga xam génn nañ ko moom moo ñëw ak huitième position daal di am 13 points ñu gis aussi Renaissance moo nekk ci neuvième position bi ak 12 points Thiès FC douzième ak 12 points nekk dixième. onzième onzième ñu gis ci onzième place bi Kër Madior moo fa nekk ak 11 points. 12e euh, euh, position bi ñu gis fi jamono fatik mo fa nek ak 11 euh, points 13e position ñu gis africa pro mo fa nek ak 7 points ci dernier bas bi ñu gis port mo nek 4e nek ndare ak ak 7 points donc ñu gis ne aussi ci bas de table bi amna ben changement ci kaw aussi amna changement parce que bi ñuy wax li ba légui ni bu fi amone mën na tay africa pro mo ak port ñom ñoy wacc dem ci national 1 bi donc mu nek 2e division bi nga xamanteni ligue 2 di moins bi nga xamanteni championnat sénégal ligue 2 bi nga xamanteni yakana ni ku nek mën na gagner sa morom ah, ku nek mën gagner sa morom comme ligue 1 que muy digle championnat Sénégal mën nañ équipe yëpp ñoo tolloo doole ku ci nekk mën a gañ saron parce que bu ñu leen gisee fii tey mën benn équipe muy la Linguère moom rek moom moo nekk ci kanam depuis début championnat bi te boo gisee lim rawee équipe bi équipe bi lim équipe bi mën nañ mën nañ barewul parce que de 22 points là 2 deuxième bi nga xam moom ci am 19 points te journée bii di ñëw mën na am ne tamit dina am changé parce que am nañ ay rencontre yu yu graaw ci deuxième division bi parce que actuellement ni ñuy wax Linguère ak Uzo mën journée bii di ñëw ñoom ñooy daje ci championnat Ligue 2 bi donc ñuy xaar aussi match bu métti fi stade Amadou bari ci diggante ESO euh, ak la Linguère bu Saint-Louis beneen euh, rencontre bi nga xam te ni moom mooy am ci diggante euh, Demba Diop la aussi ah Demba Diop aussi day def match bu bu bu métti mu ci digganteem ak Duc donc mën na ne tey ci dig deux di ñëw ay ñi nga xaar ay match yi neex parce que ñi ci kaw ñooy daje ñi ci kaw ñooy ñoo ñoom ñooy daje Guédiawaye nag moom mi ngi dem fële di rendre visite Amitié FC parce que tamit euh, match bu am importance parce que ñi ci kaw ñom ñoy gagner peut-être aussi résultat bu amé fofu mën na am ben changement bu gis ci Ligue 2 bi. donc mu nekkoon euh, sen euh, xarit Laye Cissé defoo leen le grand débriefing mu nekk sen hein, première émission sen première émission le grand débriefing ñu fas yéene di leen ko défal tous les lundis pour initiative bi ak idée bi ñu am moy ñi nga xam te ñoo nekk ci Sénégal di xam seen championnat Sénégal lan moo fi xew ñi nekk à l'étranger aussi yi nga xam te ni ci ay club lañ nekk xam aussi lan moo xew ci seen dëkk ci seen championnat première division ak deuxième division donc euh, bande annonce bi ci ginnaaw képp nga xam te ne am nga looy jàll rek bu neexee yàlla dinañ la ko jàllale parce que émission bi nga xam te ne am nañ yaakaar na dinañ ci kanam parce que ñu ngi koy teg ci yoon donc ñu leen di jox rendez euh, baax